bi ko defaree ba pare defar suñuy carte yoo xam ne yi mooy carte de crédit loolu lépp biñ ko defee tamit ñu defar ay kër yoo xam ne yi nit ñi dinañ ci mën di liggéey muy agence yi def nañu lu war a jege ñaar fukki agence ak nangam un peu partout ci boo demee ci capital régional bu nekk wala département bu nekk di fa fekk agence promobile bu mel nii ñu dem nag di waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yor machine yi ndaxte opérateur MVNO ak opérateur MNO li leen différencier mooy kii moo yor li nga xam ne lii mooy fréquence bi de rajo bi kii yoru ko ki yor rajo bi nag moom mooy héberger ki nga xam ne yorul rajo bi te loolu état bi moo ko définir def ko ci code bi nga xam ne lii mooy code des télécommunications te lépp loo xam ne war na leen a lié état bi def na ko fii te ñoom xam nañ ko ndaxte loolu nga xam ne moom la ñu tuddee fréquence bi fréquence bi Tigo moomu ko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 parce que xam na ni mango bi ñaata la koy jënde ñaata la koy witte ñaata lay transporter ba xam ni mango bi daal mi ngi ko dikkee ñaari dërëm boo la mango dikkee ñaari dërëm nag nga bëgg ni ñaar fukki dërëm la ko dikkee ki nga xam ni bii moo koy contrôler da lay wax déedéet ndax yaa ma ne nangam la la dikkee parce que coût de yi kon yu Free yi ARTP xam na ko bi mu ko xamee nag ñu étudier ko ak li nga xam ni moom la leen loi bi may ñu fixé ñu ay prix yoo xam ni man dama ko war a nungu ARTP nungu ko man ma nungu ko. d'accord bëgg commencé commencer liggéey ARTP nee na du ko nangu free free nee na du ko nangu te loi bi dafa ni boo leen juboowul ba ngeen dem ci ki nga xam ni kii mooy mooy defar prix yi les les la décision man nga def sax appel pour ñu xoolaat ko waaye décision bi da nga ko war a exécuter immédiatement ñoom ñu bañ ni duñ ko exécuter fii mu nekk nag loola nag ARTP la nga xam ne lii mooy wàllam ca loola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 mënuñu ko ubbi Madagascar bi nga xamné ne benn ci actionnaire yi fa la nek ta mom mo ni fële buur la fi tamit bour la fi bëgg doon kon loolu duñ ko nungu état bi du ko nungu loolu dal moy li nga xamné moy mooy conférence de presse bi ñu attirer sen attention et puis public bi xam li tax parce que bés bu ne ñoo ngi wax kañ le promo bi di commencé kañ le promo am na ñëw sax di fëgg di bëgg jënd puce di bëgg jënd nu mu turati mais ñun waaw gis ngeen donc, il n'y a aucune raison c'est un blocage c'est un blocage vraiment délibéré c'est le 75 638 42 88 mais ki nga pour c'est l'État maintenant qu'on met devant ses responsabilités parce que nous voulons travailler et travailler immédiatement C'est Dal que li conférence de presse bu ko defee ñu jox ñu jox avocat yi la parole pour que ñu ñu